madinatu ilmin murtajan minnatun lana jariun mundin min sunubin wa min sulmi billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim raditu anil wa ahnaani wa akrim bihi rabba naajaytuhu bi yaa nasiru kafaytani iblisa inda jeewali mbokk asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw sant yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ñu dellu siwaat ci sunu jataay bi ni wax madinatu ilmi tey ji ñu dalal ci sëriñ Abo Mbàkke moom sëñ Bas Moor mu soxna jàbbaara ñu nekk ci sunu 24 actu kon ñu daal di ànd ak sëriñ Abo bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala wa wa baraka ala sayidina wa mawlana muhammadin wa rabbi shrah sadri wa amri wa ahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wajal kalaami naafian wa shaafiya wajal lisaani farrida fasiha asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Saalix noo ngi lay delloo nuyoo di nuyu bokki jullit yi ak bokki taalibe yëpp di leen ndokkeel ci bés bu màgg bi nu génn di bésu màggal gi waaye leen ndokkeel ci bis bi nuy séentu di bésu gàmmo di ci ñaanal ñëpp nun ñëpp nu àgg te nu àgg ca ci jàmm te sunu borom defal nu ci tawfiq ci barkeb sëriñ bi. Madinatu Hilmi turu émission bi nu tuddee loolu ci mën a jàngat naan nga déggee turu yi. waaw Madinatul mi de moom ci turu yonent bi la bokk sallallahu alayhi wa sallam waxaloon na ko boppam ana Madinatul Hilmi wa Aliyun babuha maanaam xam-xam daal ci misaal bu doon ab dëkk bu doon ab dëkk la. ba ñaan yonante bi mooy jëmmi dëkk ba nga xam mooy jëmmi xam-xam ndax xeeti xam-xam yëpp yëpp yëpp ci moom la jóge sunu borom moom la ci moom la ko jaarale ci moom la ko ñëpp ballaloo kon moom mooy madinatul ilmi sëñ Tuubaa itam andil ko tur woo boo demee ci téeram yi mu taalif di ca <clears throat> andi tur yonent bi wax na ko ca boo demee ci muqaddamatul xidma wax na ko ca madinatul ilmi da nga ko fekk mooy tur yonent bi gis nga ca muqaddamat madinatu ilmin murtajan minnatun lana jariun wa mun jin min bin wa min xulmi kon kon madinatul ilmi daal ci turi yonente bi la bokk sallallahu alayhi wa kon kon kon li ñuy li li li bi waxoon rek ci mimiya yal na leen fekk ci ci turu jataay bi dafa ne fa xadu kulli musamman min sumaahu sama boobu mooy xare badar ba ba ba ba mm, yonente bi génnee di dogale njëg ma <clears throat> Abu Sufyaan yónnee Makka di ko wax waa Quraysh leen yonante baa ngi koy dogale ñoom ñëpp ñu wàllu si ko ba yàlla dogal njëgg ma raw ñoom ñëpp ñu ne nañ wàññeeku ñu ca bari Abu Jahli moom day dem day day dem ba euh, ca barab ba mu am fa ñetti fan rey fay gëléem noos fa puukari fa ba arab yëpp dégg leen ragal leen mu nga xam ne dëgër boppam googu moo ko yóbba alkande ji ko ji ko dal keroog moo tax Sëñ Tuubaa ne lakinnahu jarrahu nisfu smihi li radan maanaam genn wàllu turam moo wuti jeex la moo ko yóbbee alkande ja ko ja ko fekk ca ndax bu wàññeekoo nay moroomam loolu mën na ko bañ a dal mu teg ca nag mu xarwa kulli musamman min sumaahu sama ku ne lañ la tudde rek da nga cee amub cër kon jataay bi mën nañ ci yaakaar ci ne ginnaaw ma dee turangal ma la tudd mën naa ñu amub cër lool ci ci woowu xam-xam bu am njariñ di fi balle ne yonent bi nekk dëkkub xam-xam bi am njariñ tey nag ñu tànnoon benn thème ngir waxtaane ko mooy sëñ Tuubaa ak yonent bi ñu waxtaane seen diggante xaadim rasul nag am na lu muy tegtale loolu sëñ bi bu fekkoon turu jëmmi turu xaadim rasul rek ndax sëñ bi moo ko njëkk tudd wala amoon nañu ko tuddoon ak la tur wi di wund jërëjëf sëñ Saalix xaadimu rasul moom mënees naa wax ne am na turu zaahir am nañu ko tuddoon yonente bi amoon nay xuddaam amoon nay xuddaam lu mat juróom-ñeent mm-hmm. xuddaam nekkoon nañ ci biir këram boo demee ci sëñ Mat Lamin Jóob Dagana am na xasida gum bind bi ca tudd wana ne euh, juróom-ñeenti xuddaam yonente bi amoon da ko méngaleeg ñi doon liggéeyal sëñ Tuubaa ci biir këram ñuy benn limbi bi muy juróom-ñeent ak jënd jigéen comme amoon na ay xuddaam ñu koy liggéeyal gis nga anas sayyiduna anas euh, siiw na lool ci xaadimu rasul ndax moo nekkoon waaye xaadim boobu maanaam mi aya mooy dafa nekkoon ci biir kër yonente bi di liggéey nga xam ne moom surgaam la woon na ci biir kër këram loolu nag bokkut ak maanaam mm, xaadimu rasul gu sëñ Tuubaa gi maanaam baatin la ndax mu fekk fa yonente bi ci zahir fekk ko fi ci zahir kon bu demee ba tudd xaadimu rasul maanaama maanaam baatin lay doon loo xam ne moom la seq ak yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam kon ci ci leeral turu xaadimu rasul rek moom mas na ko tënk foofu ndax dafa dafa wax ne moom lu jiitu xam nga moom Muhammadu Bamba la tudd mu dem ba ñu ko sëñ Ablaat nettalee dem ba ca ab diir mu ne mayetuma kenn moo wax na Mouhamadou Bamba léegi moom Abdullahi wa Xaadimu Rasuuli jaamu yàlla liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaayanteeg yonente bi ne maa ngi jaayanteeg yonente bi fas yéenee jaayanteeg liggéeyal ko xidma loolu moo indi Xaadimu Rasul bàyyiolu yowma rasul al Mustafa xidmatin wa asalullah al wafa xidmatu boobu nga xam da ci dafa jaayante ak yonente bi ngir liggéeyal ko liggéey bi muy liggéeyal yonente bi it nee na da koy jaamoo yàlla wax na ko ci muqaddamatul xidma nawaytu an abudaka bi xidmatihi damu nee na sama borom dama laa jiinee jaamu ci liggéeyal yonente bi kon sëñ Muntaqa di wax nañuy liggéeyal sëñ Tuubaa jaamoo ko yàlla dafa mel ni sëñ Tuubaa ko jëkkee foofu la ko jëlee dum gépp da koo liggéeyal yonente bi ndax dafa jóg dafa jóg rek jëm ci boromam ni mu ko waxee ba mu demee ci boromam boromam tegtal ko yonente bi na sama bunt yonent bi mooy mooy mooy mooy buntub yàlla nga xam ne euh, kenn munta jaare fenn fu dul moom gis nga ba muy dem ci géej gi ba ak Conakry saalum saalum ba duggoon di ko naan di ko jox addiye ne ko damaa déggoon ñun dañ dañ la fi jaarale mm. jëmale ga moo ne ko dénk ma lam ko dénk mooy bokk na ci daf ko ne fa man tawajjaha ila gayri llahi fa sa yalamu an laa ilaha illa allah mm. fa alam yaa axi annahu laa ilaha illa nga xam ne yàlla doo ngay buur ku jëm ci lu dul yàlla bés dana ñëw mu xam ne yàlla da ngay buur waaye mu won ko ne yonente bi itam mooy bintub yàlla wa man tawajjaha ila allahi bi geyri muhammadin wa rasulillahi fa sa yaalamu anna muhammadan rasulullah kon loolu mooy kon loolu yem moo tax ba mu jógee rek sunu borom tegtal ko yonente bi mu waxal ko boppam dallani allahu ala muhammadi wa qaadani muhammadun lissamadi borom moo ko tegtal yonente bi mu dem nag jox ko léppam jox léppam yonente bi bi Euh, an maanaam topp ko ak bëgg ko day farata mhm. sunu borom moo ko farataal sëñ Tuubaa wax na ko ci kenn xasida wasalli dëban ala man xubbuhu furida ki nga xam ne bëgg ko ko farata dañ ko farataal gis nga sunu borom ci alquran muy wax qul in kaana abaukum wa abnaukum wa ixwaanukum wa azwaajukum wa ashiratukum wa amwaalu wa wa masaakinun wa tijaratun taxshawna kasaadaha wa masakina tardawnaha ahaba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu xata yaatiya allahu bi amri wallahu la yahdi al qawm alfasiqin muy wane ne lépp lu ngeen am ci àdduna rek yonente bi leen ko war a gënal lépp lu ngeen am ci àdduna yonente bi moo leen ko war a gënal kon kon yonente bi gis nga itam yonente bi waxal boppam ne laa yuminu ahadukum xak xatta yakuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi kenn ci yéen ngëmam du mat lu dul bu maa koy gënal doomi boppam gënal ko baayam gënal ko ay yooyu juróom wan naa si ajmain gënal ko mbindeef yëpp nit ñëpp nga xam ne kon ngëm imaan nit ki du ko am ngëm yàlla gu mat lu dul bu yonante bee lay gënal sa ndey gënal la sa baay gënal la sa Seydina Omar mas na ko wax ne ko yaa ma gënal lépp ku dul sama jëmm ji mu ne ko Omar nag ba ba balaa yëf mat ma gënal la sa bopp mu ne yaa gënal sama bopp mu ne ko léegi kon yëf mat na kon bëgg yonante bi moom munta ñàkk ndax mooy tax ngëm mat kon kon moo tax sëñ Tuubaa ne a man xubbuhu furita léegi itam gannaaw gannaaw bëgg yonante bi itam bi mu nekkee farata am na meññat am na luñ ci mën a jëlee muy njariñ loolu mooy xadis ba nga xam ma ngi ca saxiixul Buxaari nekk ci saxiixu Muslim yonante bi ne al maru maa man ahab nit ku ne yaa ka nga sopp yéenay yéenay yéenay bokk fu ngeen nekk ëllëg te ku ne xam na fa yonante bi di nekk mu waxaat man ahabbani kaana ma'i fil janna ci xadis bu buñ jëlee ci anas mu ne képp ku ma bëgg maa ngi yow ñoo bokk ñooy bokk fu ñu nekk ci aljanna loolu itam kon samaraat meññet yi nga xam ne bëgg yonent bi dana ko maye ci la bokk kon ku farata la munta ñàkk waaye itam intérêt ngi ci mooy mooy mooy am na njariñ tey am njariñ ëllëg moo tax euh, saxaaba yi ko yi ko toppoon bëggoon ko ba ba mu gënal leen ñëpp ñoom saxaaba yi alayhim ridwanullahi taala yonent bi leen gën a loon lépp gis nga ci ci ci euh, xare bayaatu ridwan bayaatu ridwan gis nga Urwatu bnu Mas'ud bañ ko yónnee waa ba Quraysh yónnee mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu delloo ba gis ni ko saxaaba yi def dafa dellu na leen dem naa ci buur bune ne wër naa buur yi àdduna bune ne waaye nii ñu ko màggali mosuma gis benn dag bu ko màggale buur gisuma gis kenn ko ko màggale kenn mu ne ndax tifli sax du ko def lu dul bu jëkkante nañ ko raaya ko ci seen seen seen seen seen yaram mu ne lépp lu mu leen digal ñoom ñëpp dañuy jëkkante def ko gis nga ba mu leen digalee ne leen watu leen watu leen ci ngir jàpp ne mel nañu omra ba noppi te dugg ñu makka am na ñoo xam ne metti woon na ci ñoom waaye dañ ko nañ ko jëfee nga xam ne lu mu leen digal lu ko seen bëkkan bañ-bañ dañ koy jëfee dañuy topp ndigalam mu ne itam saa bu jàppee danañuy dañuy xaw a jàmmarloo sax ngir jëkkante njàpp mi dañuy xaw a jàppante moom yonente bi noonu la ñu ko saaba yi soppe woon mu ne saa bu waxee yëkkatee kàddoom ñoom ñëpp dañuy suufeel seen kàddu loolu alquran moo ko santaane yaa ayuha alladina amanu laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabii laa tashaaru lahu bil qawli ka jahri baadikum li baadin an taxbata amalukum wa antum la tashurun nee na yonente bi toog di wax nga yëkkati sa kàddu sax ca kaw nee na day yàq jëf suñu borom nee da day yàq jëf mën naa yàq jëfi nit ki te te du ko xam xam nga loolu kon mm, fala fala daraja ma a yem mu ne Morwa it nee na bu toogee itam duñ ko duñ ko ne jàkk mu ko di ko xool ñëpp dañuy suufeel seen gis kon sahaaba yi ñoo jiitu woon ci ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga sayidna Abubakar ba mu ànd ak yonent bi jëm jëm Madina ba mu agsee ba ca xunti ma dafa wax yonent bi bàyyi la mu jëkk a dugg dugg ngir lépp lu fiy lor jëkk koo lor nga xam ne dafa jëkk a dugg xool pax yi pax yi xunt mi am pax mu ne mu am lum ca saañ ba mu des mel na pax man ndax moom moo xam ne xëy na gisu ko woon wala wala wala wala da koo fàtte yàlla dogal nag ba ba ñëwee ba dugg ci xunti ma <coughs> ba ñëwee ba dugg ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk ab coono jàpp na leen mu mel na ko for bët mi ngi tëdd ci ci kaw tànkam bi sallallahu alayhi wasallam pax moomee mu saañu toon am am jaan ju ci génne mu jël tànkam sakke ko pax ma ngir mu bañ a agsi yonent bi jaan ja jaan ja xam nga màtt na ko ba ba ba ni yonent bi eh, yeewoo ca ca ca foru bëtam yooyu ca la ko ñaanale da nga rajo soog a wàcc loolu lépp kon di war na ñoom dañoo bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bam ba mu gënal leen seen i jëmm noonu nag la la la sëñ Touba def ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko bëggee gis nga noonu ak Seydina Aboubacar defoon ca xunti ma fegal yonent bi lor jooju sëñ Touba wax ne wax na am na fu mu wax wane ne bu ko fekke woon du def lu yiis la Aboubacar def gis nga mu ne xaddi wiqaayatun li rijlil mujtaba min shawkatin wa maa yudaahil aqraba nee na boo àndoon nag moom ñu yonante bi mu jëm ci ak dégg mu nar koo jam wala jiit mu nar ko fet sëñ Tuubaa nee na sama lax bi laay jël lal ko ca kaw loola ca kaw digg wala ca kaw jiit ji wala ca kaw jiit ji yonent bi dëgg ci lax bi ci des jàll ngir la koy lor man lor ma xam nga am ndëggoo ko bu lex boo leen demee ba sa sal mu jam sa lex bi gënal ko mu jam ko ci ndëggoom foofu defe naa kon na Aboubacar defoon rek loolu la noonu la def yonente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu demoon na ba àgg Sëñ Tuubaa dem ba àgg ci ne moom jëmmi boppam jëmmi boppam amul lem na lu mu cay sante lu mu sant di ko bëggee lu dul tugg tudd gi mu tudd Muhammad moom Sëñ Tuubaa dan baax loolu laa yaxmadu fi nasfihi fi nafsihi si wasmihi Muhammadu nee du ma sant ji sama bopp du ma ci bégeel lenn loolu tudd gi ma tudd Muhammad ci jëmmi boppam maanaam kon nga xam ne tudd gi mu tudd Muhammad moo ko gënal ci boppam lépp maanaam lépp defe naa loolu ak bëgg mënu ko weesu. dem ba gannaaw bu mu jaayanteeg moom noonu la waaye lépp it mu wane ne li ma waxoon ci bëgg yonent bi intérêt ngi ci yooyu moo ci wax moom wane na ne moom intérêt sax taxul mu bëgg yonent bi dafa ne bëgg gi mu ko bëgg lim koy defal lépp nga xam ne da koo joxoon léppam. gis nga ca mawaahibu naafi amu ne salaatu sitta bi matxi sitta taatihi batta maa tisaay juróom benn weer yi da ko ciy tàgg juróom benn weer yi mu julli ci moom man li ko tàmbalee weeru weeru tam xarit ba weeru maamu koor da cay da tàgg yonent bi moom lañ wax ne ala alladi madaxtu min rasil xorum li saadisi shuhuri wa man karum li tàmbalee ndayi koor ba tabaski mu jug tabaski mu cay julli ci ci moom nga xam ne kon dundam gépp da ko ko jox ay loolu lépp nee na liggéey boobu mu koy defal ak tagg wi lépp sopp ji mujj rek la daani ila madxi nabi xubbu daatihi la ma yóbbu ca loolu lépp rek mooy bëgg jëmm ji rek dem ba itam ba euh, jot ko dem ba ne sama lépp jote naa ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léppam dami wa ahli wa awlaadi lfidaau lahu man la lahu mud kaana li sanada mu ne sama jëmm sama darat may doom sama waa kër sama lépp def naa ko njëriñ njot ñu ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dem ba ne demi fidaun li xuruji demihi wa maradi shifaau daai jismihi dem na ba ne euh, sama yonante bi bu daratam naroon a génn na sama darat génn man te daratam daratam bañ a génn moom mu ne bu naroon a wéré di naa wéré di man te yonante bi moom wér kon sëñ Tuubaa noonu la noonu la bëgg woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bëgg lépp itam wana na ne li tax mu bëgg ko rek mooy mooy mooy mooy sopp jëmm ji ndax da ko bëggoon ànd ak di ko liggéeyal ànd ak di ko roy nag ndax ndax bëgg moom looloo ca jiitu innal muhibba liman yuhibbu muti'u nit boo ko bëggee da koy topp moo tax mu ne mu daane la bayit wa maa tisaa i ànd nag di ko roy sëñ Tuubaa ak yonent bi ñaata seekal moo fi jaar ba sëñ bi soppeeku ni mu so sori gi mu sori li ma ci bëgg a xam mooy sori googu nga xam ne sori na ba noppi mu mujj wax ci biir xasidaam ne mel naa ni saxaaba yi nga xam ne ñoo nekkoon ak yonente bi waaw jërëjëf loolu moom la ko andi muy pastéefam pastéef moo ko moo ko andi ndax sëñ bi xam nga diggante ba yonente bi bari na ndax sëñ bi mi ngi fekk 1270 ci gàddaay gi 1270 loolu mooy diggante ba yonente bi 1200 nga xam ne kon 1270 junniy at ak ñaar téeméer at ak nangam. doxoon diggante mi yonent bi waaye positif moo ko àggale fi mu àgg. gis nga bi sëñ Basiru nattale na ko ci téere bi Cheikh Ibra Fall bi muy jaayanteeg sëñ Tuubaa ci Mbàkke Kajoor. Cheikh Ibra xam nga daf ko ne ni ko sëñ Basiru nattale ci gàttal. daf ko ne ki may wër mooy ku ma génne ci lëndam yóbbu ma ci leer. Cheikh Ibra woon ko ne bu ma gis kooku nag bu ma gisoon kooka mandargay mm, loola na ci moom. bu ma amutoon ci moom lu dul bàmmeelam fii la tëdd sama positif dana ma àggale ci li ma bëgg waaye sëñ Tuubaa lam ko lam ko tontu da ko misaal positifam moom it daf na ko man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy wasilaam ndax moom yonent bi wasilaam moom moo dox digganteem ak boroomam moo tax mu ne daan moo tax ñu ne daana wax na yéen seen silsila seen sanad seen sanad dàggat maanaam seen seen jaaruwaay man rek yonent bi moom yonent bi mooy sëriñam mu ne ko mu ne ko bu ma amutoon ludul amut moom jenn jeexit yonante bi benn jeexit gisuma ci moom dara xam nga newuñ la Madina gee fa la tëdd newuñ la alxuraan ji moom newuñ dara waaye amu ci lu dul moom biddiw yi rek daana ko asamaan si moo ko daa tiim biddiw yi daana ko xool ne ko moo amutoon ci moom lu dul loolu sama positif dana ma mën a àggale ci li ma bëgg man kon positif moo ko fi mu bëgg ba àgg ci wax ne maanaam madaxtu rasulallahi xatta ka annani maa al ali wal ashaabi fi l jismi wal qalbi mu ne tagg naa yonent bi liggéeyal naa ko ba àgg naa ci mel ci moom na saxaaba ya gis nga anas mi ma tuddoon léegi anas anas nga xam ne daan liggéey yonent bi ci biir këram nekk xaadimam sëñ Tuubaa am na fu mu wax ne wa inda xayral xalq jaawastu anas yonent bi dem naa ba féete naa kaw anas ci moom anas moom ko daa liggéeyal ci biir këram di ko gis di xëy di ko gis di di ko gis kaaba ak xasaan dañ ko daa tagg mu ne ci wàllu tagg nga xam ne xam nga ñaar la boole. tagg ak julli ci moom lépp di liggéeyal ko mu ne ka ko daa liggéeyal ci biir këram muy anas yu féete naa ko kaw ci yonent bi ka ko daa ña ko daa tagg itam féete naa leen kaw ci tagg wa fi mat jaawastu kaaban wa xasaana kon sëñ Tuubaa moom positif boo ko dem ba àgg ci wax ne qad sirtu lil muxtaari kal jaarini léegi daal mel naa ci yonent bi nii ñaari dëkkandoom yam bokkal tëdd ca rawdatu rawdatu sharifa mu muy ca barabam bu tedd ba muy Seydina Aboubacar ak Seydina Omar ñaam fa bokkal tëdd mu ne mujj naa mel ci ñoom mel ci yonent bi ne ñaar ñooñu xat sartu lil muxtaari kal jaarini dem ba àgg sax ci ne ala alladi bay wa baynahu tasal bi leen fi saa lin yaa na jiye man wasal mujj naa mel sama diggante ak bi sax mujj na jokkaloo jokkaloo di lenn te te te du tàqale ko di mukk loolu nag li ko ko may mooy mooy mooy gis nga xam nga damay wax waxtu wu na sëñ Tuubaa taalibe yi mun luñ ko bëgg-bëgg luñ ko sopp-sopp luñ ko liggéey liggéeyal mënuñ ko jot moom ci lim defal yonent bi mënuñ ko ci jot ci genn wet ndax kenn àggagul nag ci ñu génne la say kër ak sa waa kër ngeen liggéeyal sëñ Tuubaa sëñ moom dañ ko génney këram génne ko njabootam wax ko samay kër wéet na ma taqale ko sama waa kër ngir liggéeyal yonent bi qusuuri xalat wal ahlu an ni tafarraqat li madaxi alladi anhu lmadihu qasiru moom loolu moo ko wax fi mu jaar fépp it mu wax ne yonent bi rek la fa liggéeyal fu mu fuñ ko yóbbu ila nabiyil mustafa inda ndari wajjahtu matxan qad azala kadari wane ne ba mu demee ndar liggéeyal na fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lil muntaqa wajjahtu fi ndakaaru matxan bihi faaraqani lmakaaru wane ne kon ba mu demee ndakaaru ndakaaru gis nga panaan mu metti mañ ko fa mañ ko fa fanaan loo nga xam Bachiru nee na amul fanaan moo gën a metti fanaan moom ñu sëñ Tuba fanaan ndakaaru muy panaan mu metti moom nga xam nee na bu ma ko fàttalikoo sax dama sama sama bakkan xeer tal ci ma ma jóg dal ci kaw tubaab yi ida dakartu dalika almabita wa dalika al amira wa thubuta taarat ila aljihaadi bil armahi nafsi walakin dabba an ilmahi bi mooy dox sama diggante ak ñoom kon foofu liggéey la fi yonante bi ba mu jógee Ndakaar Konaakiri la bato ba njëkk a costé mu ne lil lil mujtaba madhi lada Konaakiri kama hadaniya bila manakiri foofu it liggéeyal na fa yonante bi sallallahu alayhi wa sallam donte fu ñuy costa rek la jàll dañ fa escale jàll waaye teewul li muy gàtt gàtt war na liggéeyal fa yonante ba ci garam basaa gi nga xam ne moom it dafaa jaar jàll moom it wax na fa lu mel noonu hadani alladi bi xabasa anni a dem la fa am moom na liggéeyal na fa yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon fu mu mas a fu mu a am fu mu a dem rek dem na ba àgg ci ne yonent bëgg yonent bi ba ne sunu borom sax maa ngi lay ñaan nga boole ma ña ca ña koy liggéeyal ci aljanna nga xam ne bëgg yonent bi àgg na bëggut bëggut a wàcc sax moom gis nga ca muqaddamatul xim wax na ko fa wajaal nii bi jaahihi mimman yaxdimuunahu fil jinaan loolu ñaan na ko boromam sëñ Tuubaa bëgg yonent bi ba àgg ci wax ne yonent bi mooy sama mooy dox sama diggante lépp lor ak jëpp alkande ak jëpp xisaab ëllëg waaye mooy sama aljanna aljanna buñ fa demee la muy neex neex ma yonente ba moo fay sama aljanna man muhammadun junnati an al xisaabi gadan wa jannati fii jinaanil waasiillahi defe naa loolu ak bëgg fa aljanna la muy neex neex sax nee na moom yonente bi aljanna moom moom moom yonente bi mooy lépp kon daal defe naa bëgg bëgg sëñ Tuubaa ni mel ci yonente bi moom defe naa kenn mu mënu ko misaal daanaka xanaa dañuy tënk rek ak wax lu nit mën a mën a jariñoo rek waaye moom fañ àgg moom suñu borom rek moo ko mën sëñ bi xam nga yaa ngi wax léegi ci tàmbali bi bëgg nga xam ne saxaaba yi bëggoon nañ ko yonente bi te ñoom bëgg maanawiye woon danoo jàkkaarloo nag yonente bi bëgg ko ci lépp di ko fegal lépp lu nar a dikk muy musiba xam nga bëgg saxaba yi du caaxan xam nga ay fitt a ngi jóge nii di ñëw nga seen fitt yi nga mën a dara sa biir mën a wane na fitt yi mën na laa dal tey nga dee ni ko sëñ bi waxe naa tànn sawul mawta ma wal kullu minhum mm. moom nga xam ne ñoom dañ doon njëkkante dee gi ngir yonente bi dund te ñoom loolu dafa sëñ Tuubaa nag bëgg gi mu ko bëggoon dama cee gis ci bayit woo xamante bëgg goo xamante ni fekkewu waaye bëgg googu nag mooy bëgg ak wi gi nga xam ne ku ko fekkewul noonu mooy sa bëgg cofeel ci yonante bi axsamtu billahi inni li nabi abadan xilan wa muhibbun wa ma ba abaahu yabaahu maanaam giñ naa ne yonante bi mooy sama soppe mooy sama xarit moom la bëgg waaye lu mu bëgg bëgg naa ko lu mu bañ bañ naa ko foofu nag laa bëggoon nga dugg ci lu mu bëgg bëgg naa ko lu mu bañ loolu dafa bokk ci cofeel ak ki ngay bëgg maanaam loolu dañ ciy jariñoo waaw dëgg la moom wax na ko ci alqasri laqad jaakum waaw aqsamtu inni li nabi abadan xilum waxibun wa ma abaahu yaabaahu mm-hmm. nabiyuna al mustafa xayrul wara garadi fi kulli cheyin wa abaahu yaabaahu wa yaabaahu abaahu abaahu yaabaahu ñaar yëpp la boolee mm-hmm. lu ma bañ mu bañ ko mm-hmm. lu mu bañ ma bañ ko giñ na ci yàlla sopp bi yonente bi di xaritam lool nag seen diggante moo dem ba àgg fa li ma wax léegi am na ci loo xam ne seen diggante sax mbirum baatin lay doon ndax fa ab jullit rek di àgg nii ci yonent bi ci ci ci bëgg yonent bi bëgg topp ndigalul yàlla ci moom fa mu la jaar loo nga jaar fa loolu moom Sëñ Tuubaa daa dem ba weesu ko daa dem ba nag fa mu àgg ak bi sax moom day day day àgg foo xam ne ndax da ko dafa dem ba donn yonent bi dafa dem ba donn ko ci zaahir donn ko ci baatin ci ci ci ci nim yàlla ci moom xam ne gis nga Euh, bi ñuy nattali bi ñuy jàng jës bu ci kanamam mm. ba àgg ci wan fajaral maa un namir mm. bokk ci mojisaat yonent bi yonent bi euh, dafa am bés ñu dem ci benn xare ndox manqué mu jël loxoom dugal ci mbuus gi mm. ndox mi baaraamam yi ndox di ci balle saxaaba yépp naan ñu bëgg def leneen def leneen bi mu koy nettali am ñu ko koy laaj nu mu demee woon sëñ bi di ko leer def ni baaraam yi ndox di génn ci ci baaraam moom sëñ Tuubaa li wane doon na gi doon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom moom lépp moom ci boppam Sëñ Tuubaa moom ci boppam dafa ne moom ci mujizaate yonent bi la bokk moom kulliyati mujizatun te axarat nee na sama lépp moom ak xustu xayaatan la tura li xayri mujizatan baanat li uduni xayri man mujisa bi yonent bi la sallallahu alayhi wa kon moom léppam day dafa dugg ci biir yonent bi moo tax nag euh, loolu moom moom moom loolu li mu wax ci yonent bi la wax ci boroomam mm-hmm. nee na moom ak bëggam da koo jaay jënd ko bëgg boromam qad bi'tu ma ahwa bi ma ardaka ak yaa jaa'ilan hawaaya fi hawaaka nee na suñu borom jël na bànneexam dugal ko ci ban biir biir bànneexam mu Sëñ Tuubaa neen amatul bànneex ay neex yàlla rek ko neex loolu it mooy mooy te ku mel noonu ci yàlla mel ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dem na ba wax ne baritu min kulli shay'in lam yakun bi rida mughnin karimin bihi yasfuli al haram nee na dañ naa ci lépp lu yàlla gërëmut xam nga bara amum bu ko arab waxee mooy loo xam ne set nga ca wicc moom nee na lépp lu yàlla gërëmut dañ naa ci kon daal loolu nag lu mat di bàyyi xel la ñu xam ne kon sopp sëñ Tuubaa daal euh, nañ xam ne mooy nekkal ko ci lam nekkoon bañal ko lam bañoon lam nekkoon ak lam bëggoon ak lam bañoon it mooy la yàlla bëggoon ak lam bañoon mooy la yonent bi bëggoon ak lam bañoon ndax moom dafa dem ba jàpp ne amatul daanaka dafa seey ci biir boroomam seey ci biir yonente bi sallallahu wasallam ba jeex tàkk ci ñoom ba ëmmatutug bëgg ëmmatutug bañ nga xam ne léppam yàlla la léppam yonente bi la sallallahu alayhi wasallam waaye nag euh, dooye rek doomu aadama moom moom moom dañ dañuy dogal ngànt loolu dooye doomu aadama suñu borom moo bind noonu doomu aadama dooye waaye lu mën a xew bëgg Sëñ Tuubaa rek moom njariñ la lu mën a xew bëgg yi rek moom ala kulli xaal du neen ak nu nit ki mën a mel sunu borom daf ne wali kullin darajaatu mimma amilu kenn ku ne rek maanaam na sa jëf na sa darajee tollu mooy na sa jëf tollu kon kon kenn ku ne rek foo bëgg a àgg yaa fay góorgóorlu ba àgg fa waaw ndax kenn bëggul ku la féete kaw waaw kon nag lu mën a xew bu bëggee Sëñ Tuubaa yi daal ni ni sa sunu daraja gën a mën a yokkoo mooy kem rek nañ mën a toppee ay ndigalam moytu ay tereem nekk ca lam nekkoon bëgg ku ko ca nekkal moytu li nga xam ne moom la moom la bañoon bañ lool ku ca ne ndax sëñ bi moom bëgg bëggoon yàlla daa tax daawul masla ci ci ci ci ci ci ci kare yàlla yi daawu ci masla naa ci naa ci lekk xisa bu doy waar tëje ko dafa am bés kenn ci waa ci ci dong yi ne woon ci kër gi koo xam ne dafa am bés mu mu mu mu mu am mbokkam moo xam ne soxnaam dafa dafa fay dafa fay dem seen kër mu yebal ko ca mu dem fay la ji ko ba mu demee ñu ne wax a wax ba ba ba takk soxna sax kooka it daal di koy wax sëñ bi sëñ bi woowaa ji ne ko génnal sama kër génnal sama kër def def lu naqar yàlla ko sëñ Tuubaa génn da nga jaaxle doo xam foo jëm nee na mu génn di wërilu fu ne mu dem fa ba am mel na mag gis ko ne ko daal boo bëggee sëñ bi jégal la moom ku bëgg alquran la da ngay bind kaamil yët ko ngir xam na ñi meloon ci alquran ndax naka moo doon mbégte moo doon léppam kooka gaawtu bind alquran ju gaaw a gaaw yët ko sëñ Tuubaa ñu ne bi mu ñëwee mi ngi ko fekk mu mi ngi ko fekk mu toog ci ak tóoj waa ji jël kaamil bi tàllal ko nii mbooloo maa ngi bari waaye bi mu siggee xool muy waa ji nee na mu bàyyi dal dina ko bëgg naa alquran lool waaye bëgguma alquran yi kuy ma yàlla mm-hmm. kon sëñ Tuubaa moom mas laa ci lu naqar yàlla mm-hmm. loolu nag képp ku ko topp war ngaa xam loolu ci moom war ngaa xam loolu ci moom bëgg gi ni ma ko waxee bëgg gi moom ala kulli xaal njariñ lay doon waaye nag euh, fa njariñ lay ëppee mooy nga fexe ba waaw waaw jëfe ay maantisaay ji mi nga nekk ci rek ca lam nekkoon rek nga nekk ca sa kem kattan li sëñ Saliou daa wax rek euh, sëñ bi kenn munte mel ne moom waaye mënees na koo roy mu ne di war naa ne kenn munte mel ne moom ba ba tax doo ko roy mu ne loolu irwaaw shaytaan la ak idlaalu noonu la ko daa waxee pexe saytaan rek la ay réer la mag jaxaseem waaye waaye roy moom yonante bi mi ngi féete kaw ñëpp suñu borom daf ne seen royukaay la. léegi ñaar benn ñaari point rek la ñuy tëjee mu jeex mooy bëgg gi yàlla bëgg yonante bi ak bëgg gi yonante bi bëgg xeetam bi gi mu bëgg jullit yëpp gi mu bëgg nit ñëpp sax laay wax. suñu borom moom bëgg gi mu bëgg yonante bi da nga fekk ci alquran. ndax bëgg moom la koy firndeel mooy worma mhm. worma ja nga jox nit ki mhm. fa la bëgg di feeñee mhm. sunu borom worma june mm, wax na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir ñu jox ko ko ñu ña fa worma ja tàmbalee sax ñu ne du ko woo mukk di tudd aw turam tudd aw gis nga ci alquran yonent yëpp leen di woo day jaar ci seeni tur yaa Muusa yaa Isa yaa Ibrahim yaa Nuux xam nga ñoo ñooy ulul azmi ñoo féete kaw ci yonent yi ñoom juróom ñoom ñeent ñoom waaye ñoom ñëpp kenn ko ci ne ñu tudd woo na la jaar bi nag yaa muhammad amul ci alquran yaa ayyuhan nabi wala wax yaa ayyuhan rasul kon war ma jooju mu jox yonent bi itam bokk na ci liñ mën a firndeele bëgg gi ko yàlla bëgg bokk na ci itam moom war warmaal na ko moom ci moom léegi-léeg sax bu koy yadd du du du jaar ca tur wa naan ko li tax nga def lii an xam daman nga xafal la an kalima adinta lahum yàlla na la yàlla jege lu tax nga def nangam waaye nga yu mel noonu lay jiital gis nga ba koy yedd ca mbirum silmaxa jooju um ñëwoon abasa wa tawalla an jaahu llama jëmeewu ko sax mu xa damirul muxatab naan koy li tax nga def nangam ñëkk na ñëkk na xar kana moom na ko gannaaw yu mel noonu yooyu yëpp di war ma jum jëfalante bi sallallahu alayhi wa sallam di wane cofeelam ci moom warmaal ko ba ba ba wan ko ne ko toppatuma la dara li yaxfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma taaxara mm-hmm. luñ mën a tudde ak tooñ rek mu ne ko toppatuma la ko ca la jiitug la mujj ak bëgg mun ta weesu loolu waaye itam bëggloo ko nag nit ñi mm-hmm. maanaam warma jooju ma ko jox mm-hmm. dafa sant nit ñi ñu warmaale ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam warmaale ko yonante bi ndax gis nga muy wax jullit ñi naan leen yaa ayyuha alladina amanu laa tadxulu buyuta annabii ila an yuudana lakum ila taamin gayri naazirina inaahu walakin ida duitum fadxulu fa ida taimtum fantashiru wala mustanisir ila xadis inna dalikum kaana yuudi nabiyya fa yastaxyi minkum wallahu laa yastaxyi min alxaq mu ne leen bu ngeen bu ñu leen woowatee ci kër yonente bi ngir aw ñam man ngeen a dem waaye bala ngeen a dugg na ngeen wax asalaamaaleykum na ngeen yëglu bu ngeen duggee ba làkke ba noppi itam ba jëfandikoo ba noppi itam na ngeen daal di génn tasaaroo ndax waaye bu leen fa toog rek ubbi waxtaan fel la waxtaan di waxtaan ndax loolu mën na koo lor te day am kersa ba du leen ko wax waaye yàlla moom du am kersa ci dëgg gis nga noonu mu leen di mu leen bu leen di mu leen di jàjje ci ñuy warmal yonent bi ba nanga nanguwul sax ñu déranger ko ci dara ba naan bu ngeen jëfandikoo tee rek génn leen ndax mën na koo lor te da leen koy da leen koy rusa wax bu boobaa gis nga ji ma wax léegi bu leen yëkkati kàddoom muy tiim kàddoom wala tashaaru lahu bil ndax loolu mën naa yàq seen jëf te du ngeen ko yëg noonu la ko waxee ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba gannaawam gannaawam sax mu ne na ngeen ko wormaal worma ji mooy wala an tankixu azwajahu min baadihi abadan inna dalikum kaana inda allahi azima soxna yii mu fi bàyyi bu leen ci jël kenn gannaaw loolu bu ngeen ko defee lu màgg la ci yàlla waaw nga xam ne soxna yonente bi ay da dafa dañoo xaraam ci jullit ñi wa azwajuhu ummahatuhum nee na ay soxnaam nday jullit ñi lañu moo tax gannaaw yonente bi kenn xel xalaatul jege leen sayyidatuna na bi nga xam ne bi yonente bi jógee fukki ak juróom-ñett la am dem na ba dund juróom benn fukki at ak ñett kenn jëlaatu ko loolu war ma jooju suñu borom moo leen ko imposé leen kenn bu leen kenn jege defe naa kon foofu la bëgg mën a yem la war mën a yem ni mu ko warmaale moom ni la ni la ni la ni la diggalee jullit ñu warmaale ko noonu sallallahu alayhi wa sallam moom nag ni mu bëggee jullit ñi itam yonente suñu borom moo ko jëkk a seere xarisun aleykum yonente bi ku xër la ci yéen bil na raufur rahim ku yërëm jullit ñi la ku leen ku ku ñaamante la yéefar yi sax da leen daa da leen daa wan cofeelam googu gis nga ba ba bañ ko bañ ko léeg-léeg ñu ñu tooñ ko gaañ ko waaye bu bu ñu leen di rëbb day day day mer bañ xam ne ko ci xar kanamam mu ne leen yàlla yónni wu ma ngir may rëbb damaa yónni ngir ma yërmande gis nga ba mu demee Taif nañ ko sonale sànni koy doj ba ba xaañ ko teewut dafa ñaan ne ko jéggal leen rek dañoo xamul dara kon yërmande moom damaa jëlali jullit ñi waaye waaye waaye waaye ñi dul ay jullit sax yërmandeem day feeñ ci ñoom kon daal yërmande yonente bi ci nit ñi moom kenn mënu koo kenn mënu koo misaal. Euh, alxuraan wax nanu euh, te loolu Sëñ Tuubaa woy na ko euh, soo bëggee xam maqaamam yonente bi te yaakaar naa jullit bu nekk war ngaa xam maqaamam yonente bi moo ndax mooy tax nit boo xamul maqaamam da nga wàññi dara jaam maqaamam yonente bi boo ko doon gàttal ci ak Sëñ Tuubaa war ma jëm ko jox. maqaamam yonente bi moom. moom dëgg-dëgg ma kenn mënu koo xam dul boromam ni ko sëñ Tuubaa waxee mu xaybatun kenn mënu koo xam mu ne boo ca bëggee wax xam dara fal taqra an surata nañ mi jàngale suratu nañ mi suratu nañ mi sunu borom dañu andi lu bari ci rañaan ma ba mu rañaanee ca kaw waaye daanaka fa awxaa ti abdihi ma awxaa maanaam wax yu na ko lam ko wax yu daanaka da ko da ko lëm nanga wut sax ñu ñu ñu ñu sore gis nga xissa bu sii boobu ñuy natt liggante waysul xarni ak saxaaba yi mhm. ba mu leen ne ku koo gis ci yéen na sàkku ci moom ñaan ndax lu ñaan yàlla def ko waysul xarni taabi'i la mhm. du saxaabi yi ndax gisul yonante bi yonante bi moom ka ñu tuddee saxaabi yi ka bokk ci saxaaba yi mooy koo xam ne gis na ko teg nga ko ba gëm ko te sax ca ngëm nga ba faatu ca mhm. kooku la ñu tuddee ab saxaabi yi te waysul xarni gisatoon yonante bi kon taabi'i la kon taabi'i la waaye eh, sunu borom xam nga dafa sañ mm-hmm. daa am jaam ñoo xam da leen di jagleel la mu leen di jagleel mm-hmm. saxaaba yi dëkk ak yonante bi di ko gis di ay saxaaba mu ne leen ku ku ko ci gis yéen na ko ñaan loo bañ ko gisee ñaan loo ko mu ne leen mu wan leen ni xamu leen ko kooku xamu leen ko mm-hmm. daanaka rek misaal leen ne eh, daanaka takk ndeer bi rek ngeen nit xam nga takk ndeerum nit kenn mënu cee xam sax kii daa xees wala daa ñuul daa lenn mu misaal leen loolu la leen takk ndeer bi rek ngeen ngeen gis kon xamuñ ci yonante bi dara daanaka bañ ko laajee ndax yow xa gis nga ko mu ne leen ba ma ñaanee sama borom mu di ma ko wuññil wuññil na ma ko am des nangami junni dañuy tudd lim te duñ jublu lim ba sax waaye bari ga rek lay bëri boobu bu ma jegee woon rek lakk naa Jibril li muy màgg màgg màgg gis nga moom ànd moom ca ca rañaan ma dafa dem ba foo xam ne ne mënu ko weesu bu jege woon lu mu néew ne rek laare suñu borom yi lakk ko maanaam maanaam mën na ko mën na ko lor nga ko ne kon maqaam yonente bi moom sallallahu alayhi wa sallam kenn mënu ko misal xanaa boroomam boroomam rek mi ko mi ko mi ko sàkk moo ko mën a xam bu ko defee itam digganteem ak sëñ Tuubaa itam ni ma ko waxee léegi rek moom moom am na ci laa xaw fi moom li ma la waxoon ci wóoy su sànq rek ngëneelul yàlla la sëñ Tuubaa li mu am ci yonente bi ngëneelul suñu borom la mm-hmm. waaye sax daanaka ak njàmbar mënu ko maye mm-hmm. ndax dem ba ba ba ba ba ba féete kaw ña ña janoog moom sëñ Moussa Ka ni mu ko waxee yaa raw ña daa janoog rasul wax ju rëy ngi noonu sëñ Moussa Ka wax na ko ci xarnu bi yaa raw ña daa janoog rasul loolu nag ngëneelu yàlla rek la mën a doon kon xam naa <laughs> waxtu yi xam naa sax lañ lañ programme woon wees jàll na bu yàgg yàgg waaye ñu sant bu baax rek di sant sant wax waa waa site bi 24actu yi leen sant bu baax soxna sant soxna Awa Ndiaye ak ñi mu ko àndal ñëpp di ñaanal sunu borom tawfiq leen ñaanal site bi barkeel bu barkeelee rek moom daanaka lépp nga ci biir yàlla ko yàlla barkeel sëñ Saalé yow ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax nee la nag xam naa ñu bari buñ gisee buñ gisee ci mu gisee fii danañ danañ ma mere ndax daa bari ñu ma doon wa seen studio te nanguma nanguma dem nga fexe ba génne ma waaye dama lay boole ak ñoom rek yaay seet loo leen di lay boo leen gisee waa waral ngànt yu bari itam ma ma leeralaale ko léeg-léeg nit sàkku ci man dara ngàntu a gàmm a a jàll te man tool yi a dem hmm. xat-xat yooyu rek mooy tax lu bare bëree bu buñ la ko waxee da ngay xam ne boo ci jublu boo ci duggee doo ko man loolu rek mooy ngànte yi waaye xam nañ ne lii mooy liggéey bi lii rek mooy liggéey bi sëñ Mountakha ni mu koy waxee ba mu ñu soog mm, toog ci jal bi rek gise nanu waaye noonu la ma ko waxee na nga xam ne lii rek mooy liggéey bi kon nag moom duñ amuñ ci ngàntoo rek la <laughs> ok jërëjëf. sant bu baax baax kon ñu ngi sant bu baax baax mbokk yëpp eh, di gërëm bu baax sëñ boo ci waxtaan wi xar naa ne sëwxu yonante bi ak sëñ Tuubaa feeñ na ci biir waxtaan wi ñam nan ko ci ndax li koy wane rek mooy fi ñu bëggoon a yam yemunu fa ndax loolu lépp <laughs> am na lu muy lu lu yëg ba mënunoo taxaw sax mënunoo woon a taxaw loolu nag yàlla na ni ko ci yàlla defal ci barke bi yonante bi fexe ba nu xopp ko waaye doon ñi koy liggéeyal ndax suñ Tuubaa kat jëriñu dara ci yonante bi lu dul bëgg ko ba noppi di ko roy jërëjëf yal na yàlla <laughs> dolli wér gi ak fan wu guddi wi dolli xam-xam bi eh, ba tax li nu bëgg lépp ak nit ñëpp bëgg ko muy tasaare la suñu borom defal nu ci jàpp jàppandal ñi ngi sant ñi nga xam ne ñoo na doon topp di seetaan di nu doon topp suñu jataay bi ñu tuddee Madinatul Ilmi dañoo àndoon ci tey dalal sunu gan muy sëriñ Abo moom sëriñ Bass Mor moom soxna Jabaara moom sëriñ Ahmadul Basir ñu àndoon ak moom di ngeen waxtaan ni mu amee solo ñu nekkoon di sant bu baax soxna Awa Ndiaye mi nga xam ne moo doon réaliser émission bi ak sëriñ Seexuna sunu caméraman ak sunu monteur sëriñ Baara ñu ngi leen sant baax di leen joxaat daje ci seen émission Madinatul Ilmi incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah madinatu ilmin murtajan minnatun lana jari wa munjin min sunubi wa min sulmi madinatu ilmin murtajan minnatun lana jari wa munjin min sunubi wa min sulmi maala ani bi nabi kulla fatidin wa sirtu bi abdan xadiman bila xammi min allahi rabbil alamin abki salaatu